dégg nañ ko tamit te tamit euh, bu dara amee da ngay xool fu mu commencé dèjà mooy benn vidéo ki ñu naan faatu Camara journaliste boobu nekk Gambia def na benn vidéo wax ci Ousmane Juma Sonko mu am tam benn waay tam waa Sonko Sonko tam mu tontu ko you know soo lépp ci provocation am na fu muy commencé parce que bëgg Sénégambia yëpp ñu déglu ak xel you know soo d' faatu Camara moo indi provocation te bu leen nangu dama bëggoon sama population Sénégambia nañu def très bu leen nangu Fatou Camara mii. yàq Gambia ba pare jaxase leen nar la jaxase Sénégal ak Gambie def nañ ci très attention parce que gis naa ku ci nekk yaa ngi def vidéo ngay attaqué te bu attaquaatee amee rek du baax déjà Gambia fu mu nekk rek doy na sëkk you know ku ci nekk yaa ngi ut danga koy lijjantee donc dinañu xamal my my 26 may actrice my superstar Stafine I love you too thanks for watching toppee maa ngi bëgg a saa mbokk Sénégambien ñeen déglu ak xel

la représente ñaar dëkk donc bul jaawlé nga bëggante am say far yi nek Sénégal bëgg la leen neex ba far ñew jaxase duggal sa bop ci li nga wattu dugg jaxase Sénégal bi Camara man bu yaabi Green Dragon Fat Camara lay adresse fas que nak na Sénégal bi yaa nii actuellement xal waa gambe ñi ngi def seen vidéo di attaquer Sénégal Sénégal tamit dañuy nañu def seen vidéo te dama bëgg loolu dag bu ñu dégglu mooy xal dama bëgg loolu yëpp mu dag xalé jël leen seen calme daf leen daan ñen dégglu ma xel bu leen nangu. faatu Camara jax si diggante Sénégal ak gàmbi parce que moom moo dugal boppam ci lu yoonam nekkul ngir neexal ay faram ñi nekk Sénégal yaa ngi gis donc loolu dafa utee ak kuy dëgg kuy jóg pour xeexal dëkkam ngir dëgg dignité dëkkam parce que faatu Camara bu fekkete la mu doon woote depuis dëgg boobu moo nekkoon ci moom di sàmm Gambie ne Gambie dafa war a nekk dëkk bu lii ñi fa nekk dañu war a am seen jàmm dañu war a am seen liberté aka war a taxaw comme tànkam gu mu taxaw parce que duul na duul àddina gi yëpp jaxase duulal boppam ba pare mu dem dugal boppam ci pañe bi nga xamante ne amul parce que pañe moom ku ko rootee ku ne ndox du fa toog foofu la toog actuellement nii parce que lu mu fen ci àddina gi yëpp dakaa fen pare far phénomène fangaara te kenn génneew ko yàllaa ko weer ku dem nak ba xamato fo jëm da ngay lambaatu so do lambaatee ba dajo rek da ngay jaxase soo ci mission bobu la ne jaxase bobu na la indi nak gambi actuellement yéen ñu def ay vidéo di waxan tax Sénégal té loolu bu lañ ci dugg dama bëgg ñen calmer sen vidéo yi xale bi waxna dafa waxé xol tontu xol dafa globaliser Gambia té war ko wax yaangi ngi parce dafa waxé xol mais ku ko ñëkke ñen di gis parce que ko ka dugg nak di wax na kooku yoonam neew ci Sénégal sen élection parce que du sénégalais. typique hundred percent Gambien la amul benn ndeyam bu jógee Sénégal lu dul ay faram mu jóg pour defalee lu leen neex foofu la erreur bi jógee donc Fatou Camara dafa jógoon ne moom journaliste la pour sauver Gambia dafa war a maintenir seen mbooloo boobu mais yëfu intérêt tey fu mu ne Gambie tey la ko gën a soxla ndaxte bépp activiste bu toogoon bu njëkk ba naan Gambie lii Gambie laa Gambie ñi torco Gambie dafa suux Gambie dafa sonn tey la war a wax parce que Fatou Camara mel bi moo toogoon di def ay vidéo naan catholique yi Gambia képp ku voté président Jammeh da ngeen di génn Gambia yépp loolu amul ci ci durin Jammeh mais léegi ñi ngi dem fekk catholique yi seen village di leen di évacuer est-ce que mu ngi ciy wax waxu ci parce que yéen a gis mu ngi noppi tey démb gis naa baakuwee booy ñi ngi def seen match est-ce que mu ngi ciy wax non mu ngi noppi xaalis bu Fatou Fatoumata Baro sàcc sàcc bu xamante ne xaalis Gambien est-ce que mu ngi ciy wax waxu ci parce que déjà dama bëgg sama mbokk gambien yi ngeen def naan man bu amee lu leen metti de man xam ngeen ma ñëk génn wax ci parce que man gambi sama dérèt la sama yaay dama ko bëgg sama xol té gambi la joggé dum leen caaxamee mukk donc bu amé li nga xam dafa ñaaw lu joggé Sénégal jëmee ko gambi ma ci ñëk jëg wax donc dama bëgg ngeen calmer seen vidéo bu leen top faat Camara mu jaxase leen diggante Sénégal ak gambi non non non ñun yoy du am ci ñun parce que benn jigéen lañu jur ñun duñu xéx

bu leen ko nangu parce que yéen def ay vidéo nar a tontu kële xale bu góor bu woo xale bu góor dafa waxee xol xam naa ne fu mu def dugal ni man ñu bokk naa ci Gambie ñun Gambie yi la wax Sénégal moo ñu jiite moo ñu contrôlé actuellement nii soo xoolee ba xool li ma doon wax sama vidéo yi ñu nii bu njëkk ba Gambien ngeen gis bëggul doon Gambien mi ne man sénégalaise la mais man Gambie laa yara fu laa màggee dangay am ndax sa xarit se ay ay xarit gambien ñu taxaw dee na man de du ma gambien sénégalais man maa doon taxaw di wax bu la ba kóotu ba fépp amul ku ma xamul maa ne carrément ñun ay gambien lañu pour doon gambien dafa am solo parce que dinaa lay wax benn affaire lii yépp ñoo ko teg suñu bopp foo ñu gisee sénégalais defe nañu yàlla gi la mais Fatou Camara ci boppam bëggul doon gambien pour moom Sénégal te Sénégal soxla ko. bu ko doon gàmmee moom ci boobu Sénégal soxla ko parce que benn sumal groupe bu ndaw la am ndaxte ku mel ni Jules Diop booy moom moom lu tooy lu ne mu defe ne bàjjo na kooku rek kooku lay campagne di Jules Diop campagne parce que Fatou Kamara boo leen xool topp na xale yu góor Sénégal yi kenn xajal ko donc du génération bi pour mun a bëgg a libérer seen dëkk ñoo koy soxla góoru Sénégal di ko doxaan xanaa mel na Jules Diop rek mi nga xam ne lu tooy lu ne mu jaawal ko ne bàjjo na donc dama bëgg Gambien ni ngeen jël seen kam bu leen nangu kenn jaaxase senegal ak Sénégal ay frères ak sœurs ngeen ñoo bokk leer bay bép sénégalais bu manké respect gambien xam ne globalement rek xam ngeen ma ñëk génn donc dant leen seen vidéo yi xale góor man lijjanti naa ut naa nombom dina ko wax carrément mu excuse parce que xass na gambien man ci bopam bokk na ci mais bu len nang fat kamara jax sénégal ndax sénégal du ko nangul calmer leen seen vidéo yi sénégal ak gambie duñu jamanté ay jëmee ngir ay vidéo non non du am donc bu leen dugal seen bopp ci benn ndaxte fu mu ne ni ousmane ak juma sonko ko sopp yéen a ko lu bari yéen a ngi dégg donc Fatou Camara bu mu leen jaxase maintenir leen seen vidéo te ngeen maintenir seen temps seen tempo bu leen dugg ci pax Fatou Camara bu dee journaliste dëgg la bëgg Gambia nekk ko am na lu mu war a lijjanti Gambia fu mu ne nii désordre fa nekk ah distrait bi ñu ko distrait rek doy na ci ñëpp ci loolu la ñuy jaaxale pour ñu lijjanti ko mais bu amee lu mu war a wax lu mu war a bind rek lu mu war a campagne rek doy na Gambia doy na ko mu bartu bi am mbax ne na dem na dem setal mes bu mu indi Gambia ak torto bu mu indi Gambia naka dem rek moo gën Sénégal nag moom ci benn moom ci boppam moom jëmmam laa wax xaajul sa Sénégal ba ciy dugal ji ñëw moom moo gën a ci ñi taxaw di yedd Sénégal li ñu war def lu ñu war def moom bu fekkete ne muus na te yeewu na intelligence bu ci moom bu dee mu ngi ci moom mu bokkoon ci nguur mais ñàkk yeewu ak dox parce nag bu doxee moom moom boo ko xoolee nag la bëjjë di ko ko manqué ku ko ko sampatee mu mbëkk miir donc na bàyyi ba mënal boppam muy soog a beneen réew man dama mënal sama bopp moo tax ñaari réew laa wax ma la ñaari réew kese man àddina laay xeexal ci dëgg donc bu fekkente ne moom dafa jot pour ci dëgg kese na sàmm Gambia bu leen nangu mu jaxas parce que dina boobu am na ñi nga xamante ne ay Sénégambien lañu moom du Sénégambien donc ñun Sénégambien yi nañu bañ mu jaxase ñu am na ñu nekk gàmm ñi na xamante ni ñooñu mun nañu taxaw tey waxal Sénégal waxal Gambia mais moom bokk ci moom benn côté la jógee mooy Gambia na concentré ci Gambia ñun ñoo war a wax ci diggante Sénégal Gambia ndax dañu am ay symbole donc Fatou Camara xaw ma journaliste nga xaw ma journaliste nga xaw ma ci ban catégorie nga doon mais kamal daawal sa bopp Sénégal yaa leen soxla mais soxla ñu la dangaa jàpp ci mel ni Zib Diop moom nga xamante dafa jaawale bàjjo ak ndox mu tooy. anyway gars yi falaa yi maa sopp sama Sénégambien yi kontaan na ci yéen calmé leen seen vidéo yi li fi naa ko rek xale boobu dina woote apologize mais bu leen dugg ci kàmm buñ ko nangu sa tey buñ ko nangu ëllëg I love you all. rek ah ñu ko destroy rek doy na ci ñëpp ci loolu la ñuy pour ñu lijjanti ko mais bu amee lu mu war a wax lu mu war a bind rek lu mu war a campagne rek doy na Gambia doy na ko mu bax tubéy am mbax ne na dem na dem setal mes bu mu indi Gambia ak torto bu mu indi Gambia. naka dem réglé moo gën Sénégal nag moom ci benn moom ci boppam moom jëm moom laa wax xaajul sa Sénégal ba ciy dugal jëmi ñëw moom moo gën a tuuti ci ñi war taxaw di yedd Sénégal li ñu war def ak lu ñu war def moom bu fekkente ne muus na te yeewu na intelligence woote ci moom bu dee mu ngi ci moom mu bokkoon ci nguur mais ñàkk yeewu ak dox parce que nag bu doxee moom moom boo ko xoolee nag ba bëjjën di ko ko manqué ku ko ko sampatey mu mbëkk miir donc na bàyyi ba mënal boppam muy soog a beneen réew man dama mënal sama bopp moo tax ñaari réew laa wax ma la ñaari réew kese man àddina laay xeexal ci dëgg donc bu fekkente ne moom dafa jóg pour ci dëgg kese na sàmb Gambia bu leen nangu mu jaxas parce que nga Gambia boobu am na ñi nga xamante ne ay Sénégambien lañu moom du Sénégambien donc ñun Sénégambien yi nañu bañ mu jaxase ñu am na ñu nekk Gambie ñi xamante ne ñoom taxaw tey waxal Sénégal waxal Gambia mais moom bokk ci moom benn côté la jógee mooy Gambia na concentré ci Gambia ñun ñoo war a wax ci diggante Sénégal Gambia ndax dañu am ay symbole donc Fatou Camara xaw ma journaliste nga xaw ma journaliste nga xaw ma ci ban catégorie nga doon mais kamal daawal sa bopp Sénégal yaa leen soxla mais soxla ñu la te ngaa jàpp ci mennum Zil Diop ba nga xam ne dafa jaawale baju ak ndox mu tooy anyway gars yi fa laay maa sopp sama Sénégal bien yi kontaan na ci yéen calmer leen seen vidéo yi yëf yi naa ko rek xale boobu dina woote apologize mais bu leen dugg ci kàmm buñ ko nangu sa tey buñ ko nangu ëllëg I love you